asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu téléspectateurs yi nuy suivre ci la chaîne des valeurs Mourchid TV ak yenn internautes yi nuy topp saa su nekk ci kenn Bougoul TV fu waay mën a nekk rek fekk naa la fa tàllal la samay yoxo di la ñaanal jàmm. dellu siwaat naa beneen yoon ngir jàkkaarloog doomi borom bàmmeel bi Ken Bougoul bu Cheikh Seyyid Mouhamadinil Moustapha Sy Al Maktoum ci émission bi nu tuddee fàttali. li sabab émission bi nak modi leg leg da fay am ñu nga xamni dañuy am ay laaj yu ñu bëgg a laaj waaye dunu mëna ag àgg ci kenn buggul bu serigne Moustapha li ñuy man rek moy diko dajalé diko waxtané ci émission fatali serigne bi laata may ci tomb yu yes yi nuy na la nga nuyoog askan yu nuy seetaan serigne bi ma ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal bëccëgu jamm ci katanu sama borom jërëjëf ma tambalé ci ñi nga xam ni jëflanté jëflante kenn bugul bu sëriñ Moustapha si ci walu ñaan li ñi tuddé parti 1 ak parti 2 jaaru ñu ci benn bi gën yi génnee nak ñu am yéne ñëw ci gën yi ñoñu faaw ñu jaar ci parti 1 ak 2 wala naka lay démé waa xam nga gën yi dafa am ñaar ba ñett gën jaune unique bi amul rouge uniquement donc mon mo mars jouer match décembre bim jexé patient yi d'accord na il est meilleur donc bobu bu ma Qui xayma un pour virgule li ma ñëwee décembre di jeex ma ñëw indi gën bu rouge ak ay buntam boo xoolee ci biir gënn gi am na buntu watunu dini sabaa am na bunt masrar am na buntu samar am na namra am na batara aliyun am na Moussa mooy rouge bi am buntu jamono mooy loxo bi ànd ak tomb yi donc kon bii doole mënul yem ak bële te bële parfois ma teg ni dong sax na libéré la nga jooy ba nuroo tudd nit ne ma yàlla rek a yàlla gëw mu woon li am na ci àdduna man ne leen faj jàngoro bu ma tiim ci juróomi minute boobu defee rek ci loxo nit ki da waaye xolam am na am li ci gën a doy waar mooy bu doon yow mi nga xam ne ngaa tële ci góor sax ba xam ne mosoo mënutoo dara ci sëy soo si toog di jóg te parfois sax duma laa jox garab moo tax la bunt yu ci nekk bokkut ak bunt yee kee unique la woon watunu dili sabaa bi am na ci biir bunt boo gis mu def nii loolu ci xam-xamu watunu dili sabaa la bokk mooy xam-xamu yoon bu ànd ak ay coalition am seen autorisation directe ci ngelaw li te kenn du leen demandé seen permission moo tax gënn gii munul bokk ak gële donc moo tax yow mi nga xam ne musoon naa laa jox garab am nga sens de waaye ñi mujj ñooy ëpp sens moo tax yow mi musul woon a jaar partie un jaaroo partie deux jaaroo partie trois jaaroo partie quatre am nga sens tey donc mën nga ñëw toog ci gën gi ça n'a rien à nga jaar foofu léegi ndax bu njëkk garab bi ma la daan jox da ngay songo ñaata ñeenti fan lu tax gën gi boo ci toogee ñaari fan da ngay songo garab soxla ma ñetti fan ak ñeenti fan yi ñaari fan yi des pour ñu vacciner sa organe yi nga mooy tax mi fii loo fi indi booy génn du la topp ci kàttanu suma borom moo tax bu rouge bi bokkul ak bu jaune bi bu jaune bi paaka ñaari boor la mais kii moo ëpp doole ci kaaraange gën a we xat noonu la amee doole ci jigéen bi nga xam ne sax en même temps mi ngi ci biir néegu sëy bànneex da koo të lu mu ëmb mu tuuru booy toog muy téye ndax moom mi dafa amaat tomb apparent buñ ko sponsorisé muy tomb nuun gis nga ko donc boo xoolee ci biir tomb bi di benn nunura la bu defal tomb ci biir muy nuun gu ëmb jamono ak sama yëfi bopp mooy mu def coalition pour fas li touru ñu récupérer ko mu tok waye timi ba paré ar la ëmbu ci jamm wosin ci jamm ci katanu suma borom kon gënd gi buntu bu né dafa am lu ko tax a donc bu doon norme chaque dama la wara wax buntu bu nek lan moy bibi manaka mën naa tax ba admi jeex du jeex donc kon jàppal na yow mu jugee musul toog parti un partie deux am nga droit ñëw choisir bu rouge bi laal ko moo tax sa jour consultation dama naa la rek choisiral gën bu la ci arrangé nga dem te heureusement ndab yi ñëw gën a oyof ndab yu njëkk ya parce que bi ka ca géej gi mu jël rapport bi amee wàññi du bëri ci sangat yi dindi ko ndax wax naa la ca ginnaaw ne la booy débit débit day métti parce que poids bi ñu lay laaj sarax dafay bari mais am na fooy tollu di toll ba am yenn quittance yi donc ñoom liñ daan dundee du la laajati somb toll noonu te kon dèjà say sarax day gën a wàññeeku donc ba sarax yi gën a wàññeeku dafa war a feeñ ci population bi faju ci moo tax boo xoolee décembre bi jàll bi yëpp raar na ndab boo xam ne àgg na lam daan àgg te man ku ne xam na garab prix nga may fay mais faj mooy sama domaine su ma nekkoon du ma laal sunguf du ma laal xas du ma laal xànc du ma laal alquranul karim tomb rek laay yem te karena marche leeru yonent bi ma bàyyi ma dox mu ngoog kon nak yow mi nga xamni ni mësuloo jëflanteeg doomi borom bammel bi ci walu ñaan limu wax ci gën yi leer na yu la sobe rek bo wote ci numéro yoy ngay sen dinañu la tek ci yoon way tax nga mëna janok domi borom bammel bi mëna mom bi mu am ñeneen ñu nga xamni nak mas nañu la tawat sen soxla nga defal leen ñaan xeyna matna at wala ñaari at en tout cas ñooñu bu ñu soxlaa ci gën yi wan yoon la ñuy jaar. jarul jaaraat boo xasee def consultation tam génn sarax yi dañ lay utal rendez rek boo xasee ñëw ci rendez-vous bi su jour consultation boo ñëwee ñaari këyit bi ma lay bindal yaay def sa suwaa quoi mais bàyyil xel ne xale mat naa aar moo tax biir gën a gurus bi tomb xale ngi ci biir. ndax alalu yàlla la sànni ma baagi ma doxal jërëjëf kon nag yaram moom mook tool ñooyam saa su nekk rek day jaadu nga di ko toppatoo di toppatoowaat di seet di seetaat ngir yàlla gàncax gi mën a ñoŋ sëriñ bi dafa bokk ci règlement yi nga xam ni moo tënk paj mi 4 heures de temps ngay faj ci dimanche bi 4 heures de temps yooyu boo démarré doo noppalu benn yoon dañu lay sax xaw a yërëm ci rythme bi ngir yàlla balaa waxtu wee jeex ku ci nekk nga mën ko satisfaire malgré temps bi li muy xat-xat benn gën rek moom moo amoon ci décembre bi ñu ñëw ci janvier bi mu nekk ñaar ndax kenn bëggul dafay yokk heure bi muy faj wala déet ndax nak danaka dimanche bu nek mu am ñu nga xamni euh dañuy sax fajaru tel ngir mëna euh, bok ci ñi nga njëkk jël loolu yeen leeral nga ci indi amna ño xamne sa yalla xamne dañu fa ne dañuy fanaan si fii parfois boo leen laajee ñu ne la minuit laa départ suñu dëkk topp horaire bi sept heures ma fekk mais quatorze heures fekk nga arrêté donc da ngay xool diggante à partir de dix heures ba heure bi may daw ba may arrêté gàtt gàtt quatre vingt bopp la soixante et quelques bopp soixante dix pour cent daanaka sax si wàcc. te jàppal ne 70 yooyu am na en distance yoo xam ne jaaruñu urgence jaaruñu enregistrement 502 direct lañ jaar mën ak ñoom moo war a régler seen cas ñoom ñu ngi toog di xaar jàppal ne su ma paree ci ñoom am na diaspora ñoo xam ne seen faram-fàcc jotaguñ ko ñu ngi toog di xaar su ma paree boucler dossier yooyu yëpp que yéene jëlaat rapport bi jébbal ko ca géej gi guddi jot ma jëlaat li des yóbbul ñu te xoronam ya parce que jàngoro bi may teggee ci yow gor duma ko wàcc wàcc ci dëkk bi transfert bi yàlla jox na ma xam naa fa ma koy yóbbu moo tax ma sañ a faxas noonu ci bopp su ma paree sol sama lokos di wax ak yow mais yow mi may seetaan dang koy ñam rek nga xol di nga xamne ku nekk ci reum donc dina comprendre nak yow mi jugge fu sori nga téla a lool te bo xolé patient bi duggu ci bir faram fàcce gën nga gàtt du fi def 1 minute 2 minutes parce que sa temps lu mu yag yag yàgg doo weesu 1 minute donc diggante bi xaw a jël tuuti temps mooy fi ma lay tegee gënn gi am na garab bu ma la jox nga war ko def sa bakkan pour booy tission li ma dégg li ma soxla mooy ci yan mooy yëg ne bala may agsi caw virus yi génn nga lu bari donc bu ma lay teg ci gënn gi ak fi ma lay joxe ndox benn lay nekk booy naan di gàll dara du des tension ak diabète ak lépp bokk yam da ngay mu génn sa bopp nga gis sa bopp boy tok ci gën gi suma la jox ndox soy paré digal ak ko mëna nek gal ngay def mu génn baqata yeeg rongañ yépp ay ko dara du yëndu ci yaram bu amul sens nag moom bir bi daw nga yëndo yalla mako sarax jaayuma ci bàkkuma ci man lima wax loolu mo am xam-xam ku ma ko jàngaloon tiitaroo ko mu tax du borom laafa du borom jesneer du borom kurus waxoon naa ko deux mille vingt et un deux mille vingt trois ku la ci taxaw ne la maa jàngal kenn duggul ba sëriñ Moustapha Sy li muy def ne ko waxoo dëgg ba ma ko lancé défi ba tey mi ngi bëgg a yàgg du ma wax lu ñu dindi ñoom kaanataa rat kan fatahnahuma wa ja'alna nag minal maa'i na shay'in hayy maa yi bi yàlla mooy xool ku ne mu séddale ci xam-xam miim lif ko doog la lif ga ñëwaat rek tikkante gi ñëwaat kulli shay'in hayy nangu leen dogal moo tax bu heure bi jeexee man li may préféré mooy arrêté donc même sa heure su fekkee patient bi des na da dem dimanche prochain kon yow mi mu arrangé li la gën a arrangé mooy booy ñëw nga calcule ticket urgence ak ticket unique parce que bu fekkee temps bi jeex na urgence rek moo lay arrangé léegi yaay xool ndax jël ticket urgence wala ñu renvoyé la dimanche prochain nga yàq sa ñëw sa temps bu la ci gën a jël sa dossier yóbbu ko 6 mois yaa de bi la ci parce que man su ma la yóbbu centaine ci dossier mois tamit dara safu ma ci yàlla su ma neexoon toog fi ay at du ma fajati dara la mu dul wàññi dinaa fay salaire di dund di man la ma man ndax maa ngi liggéey ak ñoo xam ne nekkuñ ci réew yi te sonn mu sax ba sonn ma te budget lañ may fay kon faj mooy sama domaine mais dama am ay règlement kon yow teelal ñëw rek mu jaral la yàqi nelaw mais de surtout temps soo ko amee garde ko parce que man soxlawu ma desi tout temps mooy dara jara yàq say nelaw ma teg di sa tawat mu jara la ndékki ba suuf soo ko ñëw nga ñëw ma renvoyé waat man xëccoo ma ay patient xëccoo ma courtier bi mooy utal ay client j'ai pas le sama résultat mooy sama courtier à ah bon entendeur jërëjëf kon nak yow mi may dégg foo mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy indil na la ay leeral yu mat sëkk ci waxtu wi nga xam ni moom lay faj fàttali na leen ko 4 heures de temps yi mooy ñi nga xam rek ñoo jël si rendez-vous fii ci dimanche bi am na ñeneen ñu ne feneen ci réew mi ak ci bitim réew ñu nga xam ni ñoom moom heure ba des ci dimanche bi kon nag faaw rek ngeen di comprendre ci loolu sëriñ bi bokkoon na ci règlement yi tënk paj mi mooy ñi nga xam ni dañu amee feebaru xel wala ñu ag ci tawatu yaram bu metti lool ñoñu da nga daan wax ni jarul ñu leen di déplacé nañu yónnee rek di nga mën a jëflanteeg ñam à distance waaye booba gën yi amul bi gën yi génnee nga xam ni faw malade bi daf ciy toog su boobaa loolu naka lay demee xam nga bu njëkk dañ laa la wax ne malade yi nga xam ne donc dañu xaw a yor feebaru xel wu ñu yor malade yoo xam ne maanaam dañu sonn ba xaw a donc dan la wax ne la jour consultation jarul muy ñew parce que jaru ko won même dimanche jarul muy ñew mën na yónnee rek mais bi gën ni ñewé nak obligatoire patient bobu day ñew ndax parfois nga jox garab mu dem ba ag malade bi lank ne du ko utiliser te donc fi mom bo toogee ci gën nii boo àggee nelaw force ndax looy jadd jadd boo ñëwee da nga xam ne fii jadd jadd jaru koy jaay rond point bi la foo ñëw tourné waat donc bu mu nekk malade buy débordé rek ndax ci biir tamit ay borom naaw la noo fi nekk donc même su fekkee malade moom day débordé bu ñëwee dañ koy exposé mu toog ci biti ki ko rangal dugg bu tuuram jotee ñu jël ko mu dugg ci mais bàyyil xel ne yow mi ànd ak malade boobu noonu daggati ko urgence moo la gën a arrangé donc doo sonal malade doo sonal ñu fekk en même temps en général ñu mel noonu même bu ñu démarré seen programme dañuy commencé tey jël garab suba malade bi tane duñ fonk seen rendez-vous parce que ñoom bu ñu commencé gis changement rek jàpp na wér na xam nga boo demee ci tool yi bu nawet xasee juddu ñax bu njëkk mi dana gaaw dina màgg mais boo xasee bay première mbay ba war a toppaat. ñax mi ñëwaat mooy gën a gaaw a màgg ñax mu ñëkkoon ndax day fekk engrais bi saf suuf si nooy ndax mi saf sàpp suuf si donc deux semaines rek boo gëjee say tool boo ñëwee doo ko xamante donc garab noonu la mel ci yaramu nit donc bu mal gouvernance bi organisé woo ba noppi opposition bi xeex ak ñoom ba am ci ndam bu tax ñu naagu ndax bari nañu jongru toog di xaar ci biir yaramu nit donc yoyu jongru ñu tuddu ay virus donc da nga dem yëg ne tànn rek nga toog mais une semaine deux semaines da ngay commencé sentir ne ñom ñi ngi organiser seen biir donc buñ lay songat ñuy ëpp doole par rapport bi ñëkkul moy li ma la wax ci ci ñax bi donc day fekk bobu sa yaram vaccin yi commencé ñu jóg ba pousse ndox mi saf na engrais bi saf na donc dañuy xëccoo ak correspondant yi nga yónni ca biir yaram pouvoir bi fekk yow respecté woo sa rendez-vous donc buñ la yóbbee at yi jël la donc soo ñëwee da ngay reprendre à zéro que virus yi installé wu ba noppi bi ma lay libéré nekkuñ ci woon mais ginnaaw sang sàggante wala jamono jàppalal ñoom si la ñu installé wu pourquoi pas nga ñëw mooy continuer waat ak yow désolé du ma ko def soo baax na da nga gis ñu la wax ne la fayoon naa ba noppi absolument fayoon nga mais su ma la joxee rendez-vous bii nga dem hôpital ñu bindal la ko nga dem pharmacie jënd ko garab kan ma la bindal pharmacie hôpital bi nga garab bi nga jënd hôpital moo la ko bindal docteur la ko bindal nga dem pharmacie jënd ko léegi bu garab bi jeexee boo demaatee ci médecin bi bu la bindalaatee garab soo demee ci pharmacie bi loo koy wax damay laaj rek da naa ko ndax garab bi jëndoon naako ko c'est pas la peine may jëndaat wala wala da nga bi mu jox la garab nga dem mais da koy jëndaat te ñoom ma fii ci faj tollul ma fii ci organisation tollul ma fii ci méthode donc nang leen nangulee respecté ko sama daara ak sama principe ba ñu mën daw làqu ak mer wàllu yaa gi je m'en fous ñoom mais daw làqoog wiri wiri jaari ndaari bu carte ga jaxasoo rek nga agsi parce que man xam naa li may def sëriñ bi li ma na am na ñoo xam ne tey seen xëy ak seen gont yëpp. mooy kañ lay échec walaay dina yéex di nga gis na nit ku yabal malade te gëmul sax li may def ci ko demal ci kenn dugul bu sëriñ sa Sy nga testé xool mais ki ngay yabal su ñëwee mooy njëkk su jot nee na sama buntu kër fii loo fi jege xam nal li fi xew dara mu ma fi moo tax parfois sama tooñ passé na ci biir ne leen maa ngi nuyu sëriñ privé yi ci biir fekk xam naa li may donc boo xasee tëb rendez-vous boobu noonu mu waral boo ñëwaatee ma sanctionné la yóbbu la 6 parce que bi ma defee en enregistrement ba noppe semaine bi ba installé ka ca géej ga tere ma bàkk sama jàmbaar ju xonk ji te mooy sama meilleur ami muy l'homme des années mi muy jàmbaar ji ci biti jàmbaar la de wii muy jàmbaar de def naa man ñaari at ci ren moo <laughs> tax mention spéciale dama ko sopp te yàlla tax dama yëg ne rejeté ci ay ponkal ak di rëq seen digg xaw ma nu mu toll moo tax soo ko génnee du xajate fii bu bu meree rek nga xam ne mer na communication face compliqué wul parce que li nga installé ci biir rek la lay wax ngay dégg moo tax dimanche su ma koy gis mu ne lew sedd guy ma wéeru ci kawam gis mu ne nemm li mo doxal rek ñu ngi xëpp di xool samina wa tax na insha allah ndaysan momit ne ma ñi ci biti buñu genn muy yu góore yu jigéen bala ma leen ci biir rek donc man dong doyna ci terrain bi xanaa wóolatoo ma tural meew mi rañu dem nga xol du dégg sax li wax lay ndaysan berkel yi ba dañoo bañ na dugg nagi nañ dugg gore yi nañ fatu man dong doyna ci marché bi donc ñenti tank la yor nga yor ñaar tural ma meew mi rek mu walangaan jëm si ci mam kese geej gi dur bàgg bi mu genn nga xol boy bàkk may salax muy wacc wala boy xol une heure deux gis mun yag le ndeysaan ne nem nga xamne poids bi mu bari na ndeysaan ma ñewon tamit lool motax filtration <laughs> boy wori lom l'homme des mom la mais du man parce que jàmbaar nak il y a 2 ans 3 ans on est ensemble saret musul war ci ko xir musuko dal lekk ak naan rek la xam ay vainqueur la de um ndax gis naa ci xaal njaboot di barki démb ñu monté benn vidéo bu maam ci ahmad ci yaani di wax ma gis ñu ko collé ak ñu ko monté li ci wax ne ay nation lañu comme ñun ñu yaru ak ñoom lañu ci façon bu ñu ñu dul lore ba tay yonent bi daan wax fo sax téré nañu ko wanté na ngeen di fo ak fasu jihad ndax budul mom mu ñaaw te yek ne ni mook yow a bokk cause yëg na ko xam na ko moo soo ko waree ba àgg ca xare ba loo def benn mu def ñaaram waaw te bi daan wax ni di leen fo ak fasu jihaat di ko sang di ko raay léeg nga teg sa lex sax ci lexam pour mu yëg ni yëg nga ni ñu ngi fi. walaay ndeysaan mu ne walaay ko xamul rek xamul waaye soo xoolee xamee animal li ñuy wax ngay dégg nga xam ne ko xamul xamul moo tax amul rabu àll booy xool ci faj bu nekk ci biir kër gi bëriwul bëriwul ki xamul la xamu ko moo moom jàmbaar ji xonk ji sama meilleur ami la bokk parce que vainqueur pire la kon nag merci encore une bonne fois. jërëjëf kon nag téléspectateur yu la chaîne des valeurs Mourchid TV ak internetu kenn bëggul TV yi yéen a ngi jàkkaarloo kenn bëggul bu Cheikh Seyyid Mouhamadinil Moustapha Sy Al Mourchid jëloon nañ ci ñetti tomb yu nga xam ni dañ ciy fàttali askan wi ndax dana leen dimbali bu baax a baax ñu bañ di juum baa ñu bañ di jaawale sëriñ bi kon ma ñëw ci actualité ñu yëkkati jotaay bi bi may jiital mooy Xaadim Sàmb fan yi deg nañ ko ci ab ke muy wax ak euh, président Macky Sall nan ko yow dal waxal rek li nga bëgg ko def xawma nak ndax wax jojé def ci jublu e mandam det waye na xamni ni réew mi mom dañ ko fi téré ba ca dess itam muy wax ni réew mi kenn du ko jox kat lolu deug la mu tek ca itam ni kenn du ko jox kuy damp lu guddii lolu nak dama xamul ndax dak ganar waxale sa soxla lam det no gisee waxam ji ah bu mom mo wax waxal li nga bëgg wax te noonu la ko waxee ndax réew mi kenn du ko jox ay saagakat ak kuy dàmp lu guddi laaj ko kan mooy dàmp lu guddi tànn ma baag yi ma doxal. jërëjëf kon nag foog naa ni dégg na laaj bi ñàkkul ni dina ci tontu mu am beneen bu nga xam ni faaw ñu wax ci ci 31 décembre bi. réew mi fo toll da doon riir ndax concert casserole yi nga xam ni population bi doon na ko amal yow nag nga bokkoon ci ñi ko joxe ban yëg-yëg nga ci amoon. waaw ah, man de wax dëgg yàlla ñi ma amoon ñëpp ñu ngi woon ci concert te bokk naa ñi d'accord ñu joxe ndigal loolu te man lañ maa ngi woon ci terrain donc man moom lépp loo xam ne gis naa ne logique na ci ma ko envoyé dinaa ko jox ñu ma war a jox ñu def ko santaane tamit wax dëgg yàlla gis naa ne njaboot yi wax dëgg def nañ ci jéego yu mat solo loolu wax dëgg yàlla ñoom it yàlla na yàlla fay leen yiw incha allah yi fii la ñuy yem ci fàttali tey bi sëriñ bi nga tàggoog askan wi ba beneen. bàkk tey sargal Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamed bin Safar yàlla sama ku mu am rek yàlla na raw wa maa saalika lay mu am rek benn mbokk bu ma bëgg tudd cantam ndax mënoon nañu xaar ba suba sax. bu ñuy tudd cant yi wax ko waaye itam dafay rafet ma waxal ko sama bopp muy kenn bëggul bu sëriñ Moustapha waaw ah tabaarakallaahu bi gàmmu gi di ñëw indi na fi fanweeri nag te ku ne xam na ne loolu tuutiwul boole ko juróomi gëléem fa tabaarakallaahu denre yi dara desul diggante oignon pomme de terre ail huile lu ne jënd na ko indi na ko fa tabaarakallaahu booleeg enveloppe yi mu ko booleel ba noppi ni xeeb naa ko ma defe ni kon nag dana rafet pour ñu tudd ko ba nit ñi xam ni boobu coono daj na ko ci gàmmu gi mu di ko gërëm di ko sant surtout ci turu waa waañ wi na waa waañ wi ku leen indil loolu yaakaar naa fa tabarakallah di nga leen gën a jàppale bu baax a baax kon nag kenn boobul yóbbante baa ngoog fa tabarakallah lulen lulen